sans limite lay bàyyi <laughs> <laughs> parce que lii mënul nekk Babacar xaw ma yow la xaw ma bëgg a xaw ma ko doon non xeetu xeetu présentation yi amul fenn di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy euh, topp ci cent limite euh, TV di leen ziar euh, si ajjuma ji kontaan dellusiwaat ci beneen numéro bu à l'écoute de ni koy defee dalal koo xamante ni saa su nekk dañ koy indi ngir leeral ngir waxtaan ngir bàyyi xel it ponk yu bëri yoo xamante ne jar na ñu taxaw si spécialement tey di 23 juin 2023 12 ans après 23 juin 2011 bi nga xamante ne ni gis nañu mouvement M23 génn yeneen association euh, taxaw ñëpp ngir fexe ñu respecter euh, li nga xamante ne mooy euh, démocratie loolu tax na nag ku mel ni président Abdoulaye Wade daal di deltu ginnaaw ci li nga xamante ne mooy ticket présidentiel bi mu bëggoon jàllale bu vingt cinq pour cent bi te ministre de la justice ba woon Cheikh Tidiane Sy daal di koy waxoon ca kanamu ndaw pencum réew ma tey dañuy taxawaat ci li nga xamante ne mooy xeex yi jotoon am bés boobu la taxoon ñu doon xeex fan lañ ci toll tey lan moo am ak na leneen wala bokk lépp dañ ko euh, fàtte dañ ci taxaw ak suñu gan euh, di Simon euh, Simon nag bu ngeen ko xamee xam ne bokk na ci membre fondateurs yu Y'en mouvement boobu mouvement boobu bokk itam ci yenn ci combat yi nga xam ne gis nañ ko mu soxal ba tey penc mi li nga xam ni mooy seen yitte mu di activiste activiste damay ragal damay ragal présenté ko noonu ndax réew mi léegi activiste dafa am étiquette buñ ci daaj kiit kiit rappeur bu ñëpp ràññee ci taxawaayam kontaan nañu ci bokk ak yow plateau waaw euh, waaleykum salaam Aram maa ngi lay fay di leen nuyu di nuyu Pape Ousmane di leen remercier ci dalal bi di nuyu tamit ñu ñuy suivre yëpp à travers seen réseau yi. jërëjëf Pape Ousmane ziar naa la. yaa ngi naan ziar Ndeye Aram maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Babacar ak ñu mu àndal <laughs> gis naa sonal nañ la trop ay yàlla baax na sànq maa ngi koy wax ne ko Babacar dama bëggoon nga noppalu tuuti rek waaye gis naa ne dégluwuma mais daal maa ngi koy nuyu di nuyu waa réew mi di nuyu bu baax Simon. vraiment am mbégte di ko dalal parce que gëjoon nañ ko dégg quand même wala boog ñun moo tax tey dina baax incha ñu def ak moom comme ni nga ko junjee sànq fàttaliku ak it xool li ci suñ kanam incha allah. alors fàttaliku la wax mais damay dellu ba 2011 Simon. Mhm. le 23 fu la fekk lan nga doon def. le 23 mu ngi fekkoon ci grille assemblée bon man damay bëgg yenn saa yi ñu. wax un peu jour yu précédé assemblée. Mhm. Euh, yu jour yu précédé le 23 parce que il ne faut pas oublier tamit que un député bu mel ni Cheikh Bamba Dièye avait déclenché les choses en s'attachant takk boppam ci grille assemblée. oui français wolof wolof français. waaw wolof ah. man nag xam nga français laa gën a nañ ma. baal laa gën a mais bon nañ dem nañ dem. nañ dem baax <laughs> donc euh, benn député bu mel ni Cheikh Bamba Dièye euh, yeew boppam ci grille assemblée yi mu nekkoon benn signal bu fort. c'était le 22. waaw ñun ñu tamit euh, la veille du 23 defe naa c'était le 21. Hmm. Mhm, waaw parce que la veille du 23 le 22 ñëpp a ngi woon Daniel Bretier. Ah. donc ñun ci la ñu dem fekk fa parti politique yi. ne leen ñoom ñu nekk foofu di naan dañu bëgg a def ay pétition pour yóbbu ko ci ambassade yi pour que ambassade yi reculer loo wadd c'est ce qu'on avait compris en tout cas ñu hmm. leen pour man lii reculer loo wadd du ay pétition su fekkee ne Sénégal ñor na leen kaa leen ñu wàcc léegi ci mbedd mi affaire bi ci mbedd mi lay xewee donc noonu lañu demee tamit place de l'indépendance commencé manifester yenn jeunesse politique yi fekk ñu fa donc moom ay échauffourée ba si la ñu jàpp caat hmm. fu malaat Euh, jàpp ñoom Cap de Seus Crazy Cool Karim a ak ay euh, quelques employés Sonatel si je me rappelle bien mm. ñoom Massiré et tout donc euh, ñun ci lañu ñu parce que chance bi ñu amoon jamono jooju Aliou Sané ak Fadel ils avaient beaucoup d'infos vu que ay journalistes d'investigation la ñu woon mm. et kenn xamu leen woon xam ràññeewuñu seen kanam comme ni ñu ko ràññee tey après 23 juin donc ñooñu teel a wax ne comme jàpp nañu gars yi Simon kilifa yéen il faut ñu rawale leen il faut que ngeen euh, parce que on a un travail à faire pour que demain que mu am mobilisation au niveau de de de la de l'Assemblée donc ñun ci la ñu rawalee après ñun ci la ñu dem on est allé vers les étudiants vers yenn association yi dajale gars ne suba ça doit pas passer na ñëpp ñëw dem wax ak yenn parti politique yi na ñëpp ñëw ñu dajee assemblée ñoom tamit ils avaient commencé le boulot pour être honnête noonu la ñu demee joxante rendez-vous le 23 juin d'abord c'était à la place de l'indépendance oui. mais après la ñu ne nañu daje buntu assemblée donc noonu la ñu jubalee buntu assemblée dem on est resté là-bas jusqu'à 17 heures avant boobu fekk euh, Abdoulaye Wade amoon na gentleman démocratique boobu mm. noonu retiré loi bi mm-hmm. loolu la suñu waa ji toog fii nii ki may bañ a tudd turam amul mm-hmm. mais amoon na gentleman voilà démocratique boobu nga xam ne il a vu que ne ça chauffait et que les gens venaient de plus en plus en masse donc noonu la waxee nañu retirer loi bi bu ñu retirer loi bi nag yenn parti politique yi je tiens à le signaler hmm. ils ont tout fait pour que ñu diriger au vers le palais le palais parce que palais c'était à même pas 300 mètres même pas 400 mètres ils ont tout fait pour que donc nous on a on a ñun on disait tamit aux gens comment on peut se battre contre benn acte antidémocratique qui est ce ticket présidentiel ñu bëgg ci teg benn acte antidémocratique dem déloger un président élu démocratiquement yenwul maanaa donc noonu la doon tamit xeexee ak gars yi ci biir y avait une bataille interne mais si foofu balaa ngay sori boo nee les politiques euh, jamono jooju xamoon nañ ñi ngeen daan àndal ci xeex bi nekkoon ci opposition bi. Mm-hmm. mooy visage yooyu ñu xam wala. waaw lenn si ñoom du ñëpp ñi gàddoon xeer bi fii ñi yoroon seen mer gàddu. du ñëpp nag du ñëpp mais dama ne ñenn si ñoom. Mm. ñenn si ñoom ils ont tout fait pour bi. jéem a jubal palais nous on a di on va aller libérer les détenus politiques. naka lañ ko jéemee. non pour ne au palais da nga doon dégg au palais au palais gars yi di. yóbbu noonu wax ñoom seen bopp. parce que quoi qu'on dise. Hmm. les politiques avaient mobilisé tamit ils avaient mobilisé mais euh, étudiants yi ils étaient beaucoup plus nombreux et c'est eux qui ont fait basculer la chose. Hmm. et chance bi ñu am te moom laay wax léegi tey ci manifestation yu tey loolu moo amul. mooy da doon gis ay groupe yu yëngal yow boo ñëwee rek ne leen gars yi bi dañuy teg lépp ci suuf. et et franchement. Hmm. je me demandais sax cër boobu fan lañ ko jëlee au fait ñun fan nak naka lañ ko yàlla tàbbalee au fait tu vois da nga doon gis yenn saa yi mu am échauffourée ak police je me rappelle euh, saa yu amoon ay problème ak ay groupe de jeunes commissaire Arona Dia da man la doon xëcc. te moom moo doon commissaire central. soit man lay xëcc wala mu xëcc euh, kilifa. pour ñu ñëw wax booy te saa yi ñu ñëwee wax booy booy teg ci suuf amoon na benn moment. Hmm. booy commencé jaar par porte assemblée ci ginnaaw. Hmm. ñun lañ ñëw xëcc ñu daw calmer booy non gars yi lii taxu ñoo jóg ñu continuer manifestation bi ñu diriger waat public bi et c'est la même chose qu'on a dirigé le public nen dañuy dem centrale pour réclamer la libération. de de de de nos de gars yi ñu jàpp la veille ci yoon boobu na man lañ ma lañ ma jàpp te moment boobu yaa ngi tellement ci euphorie bi ci biir. parce que maa ngi dégg ne Fadel Fadel ñu ngi ma doon wër. Hmm. ñu ngi may jéem a joindre benn moment sax kilifa ñëw na ma dee ne ma booy. wuyul sa téléphone Fadel la nga lay jéem a joindre parce que amoon nañu info ne man ak kilifa ils essaient de tout faire. pour jàppale pour jàpp ñu. kilifa moo am chance ñoom ñu moom ñoom ñu mu wëcc ñu ñu ñu yóbbu ko évacuer ko man j'étais tellement dans le show de l'action et j'étais devant. que dañu ñëw côté pont bi rek toog après gars yi commencé dóor policiers yi avancé man je voyais pas le truc et noonu la ma jàppee après gars yi ils bi may yéeg ci maa ngi fàttaliku bi may yéeg ci escalier centrale yi benn euh, benn policier yi rek këdd ma quoi sa sama bët tël man ma daanu souvenir bi ma am mooy yëkkati nañ ma dugal nañ ma ci biir ma gis ay huit neuf personnes yu ma wër ku nekk di liif benn côté ñii di dóor ak ay casque ñii di dóor a ay moment boobu noonu nee nga ndax li ma doon xeex jar na ko du sax jàll sa sa état d'esprit. Mm. Euh, aram day mel ni dafa am lu ñu la sol du sax jàll sa esprit da ngay gis danger da ngay gis <laughs> dafa doy waa li ma lay expliquer nii. Mm. tu vois le danger tu ne bouges pas benn moment camion bi mu ngi avancé ak ndox bu tàng bi di ko di ko man maa ngi taxaw. Mm. j'ai pas bougé te camion bi dafa jege après jàdd donc tout pouvait arriver danga doon toog di jigi rek dégg fiw mu leer na li la romb ni hmm. bal la yaa xam balaa blanc la yaa xam bal buy maas la am na ay bul kilifa am na benn bu ñu ko dóor sax fii ci bët parce que bëtam bi après mu ngi néewi woon hmm. tu vois da doon toog di dégg ay affaire di la romb fiw di xam nga mais yenn saa yi ñu ne la changer position booy côté bi nga nekkee baaxul chance bi ñu amoon tamit comme j'ai dit les étudiants étaient là euh, y en a marre aussi il y avait un fort bouclier il y a quelqu'un qu'on ne cite pas qui a parce que très respecté par la rue très respecté par le hip hop moom tamit à chaque fois boo amoon ay attroupement bu ñëwee taxaw wax ak booy booy dañuy teg ci suuf malheureusement peut-être amul aura wala siiw bi ñun ñu siiw hmm. mais il a il a joué ce rôle ce rôle extraordinaire là aussi ko Mm. Pape bëgg naa taxaw fenn balaa ngay ñëw. bien sûr ah, euh, su ma ko mayee. parce que da nga wax da nga dugg rek ñu commencé la dóor. Mm-hmm. est-ce que dafay dëggal li ñenn ñi di wax maanaam boo yeggee ci yenn lieu de détention yi. dañuy maltraité ñi nga xamante ne ñoom la jàpp. même bu fekkee na la tax ñu teg leen loxo leeragul walla yoon leeragul ko ko. Euh, beneen bi mooy xeex bi. génne woon ticket présidentiel bi rek la woon wala dafa amoon leneen lu laxas woon ci ginnaaw lu leen taxoon a jóg. non jamono jooju c'était le ticket mu bañ a jàll mu bañ a jàll et tamit donner un signal fort parce que jamono la boo xam ne jeune boo wax waxu politique da lay ne non ah booy loolu yëfu politicien la quoi baaxul mm-hmm. donc il fallait dire que aujourd'hui la jeunesse ne vomit plus la politique vous avez tout fait parce que politiciens dañu doon def lépp pour affaire bi nekk entre ñoom. waxtaan yi entre ñoom la bu ñuy dajax communauté internationale c'est entre ñoom ñun a partir de jour boobu la ñu commencé di di di daj di daje ak ay kilifa yu àdduna bi yu bëri et di wax loo xam ne politique yi ñemewuñu ko woon wax donc il fallait montrer que des jeunes étaient là c'était c'est avaient pris les choses en main voilà et que démocratiquement dootuñu seetaan. donc il faut que yi jaar yoon. une prise de conscience bu jeune une et moom la ñu gis ne ba tey. Hmm. mu ngi saawaan baawaan ba tey parce que tey la jeunesse s'intéresse beaucoup plus à la politique qu'avant. am na ñu ko du ñu ne nag du ñu ne nag y en a marre kesem la. Ah. mais c'est une longue lutte et que y en a marre 2011 joué na ci pàcc bu am solo ah surtout à travers hip-hopeurs yi nga xam ne ñoo ëppoon visibilité ñoo nekkoon ci kanam maintenant dóor yi nga wax. oui dama koy confirmer parce que effectivement man dañ ma jàpp. et man yàlla xam na ne je faisais partie de ceux qui calmaient le plus et maa la koy wax. saa yu amoon yenn tension euh, commissaire duma sax duma sax tàggu day poñe rek xëcc. bu xëccee ne ma si moo oh, kaay na nii rek joxoñ ñu dem on calme les boys affaire bi revenir à la normale et je tiens aussi à respect bu may policiers yi di wër di dóor noonu.